amul ak peut-être créer une situation où xamni dañuy mettre en difficulté sax ak suñu ay alliés parce que xamnañu sommes ni dañu nek ci politique politicienne té ñun tay lañu gëna assumer suñu Ousmane Sonko en terme en tant que allié tey laa gëm ni Ousmane Sonko peut et doit être candidat à cette élection Nous laa gëna gëm ni Bassirou Diomaye peut et doit être candidat à cette élection te duma ci ñak gëm tant que liste ba loolu laa def loolu la yàlla def parce que loolu la ñu gëm mais ku bëgg a wax ni avenir Sénégal bi ñu bëgg parti la da ngay wax lu la neex ku bëgg wax ni Cheikh Tidiane Dièye dafa bokk Pastef amul fenn foo ko teg parce que yii ma la jox yëpp preuve la bi may mujjee ci preuve yi te moo gën a dangereux ci yeneen yi moom Amadou Ba nee na man Cheikh Tidiane Dièye sama militantisme ci Pastef tax na Pastef def candidat ci élection départementale élection locale yi wessu ma suis candidat Pastef ci Ziguinchor ba maay président du conseil départemental de Ziguinchor mbok yi problème de niveau amatina premier ministre du Sénégal bu xamul le président conseil départemental bu Ziguinchor jamono ji ñuy wax waaye yeen sëñ bi fuñu jëm nous sommes en danger vous avez ko mu nga fait di campagne di di campagne électorale dana fa dajé président conseil départemental bi ko doon dëggantaan du ko xàmmee parce que mom fait na man la wa yow premier ministre bi chef gouvernement bi chef préfet yi chef gouverneur yi xamul ni le président du conseil départemental de Ziguinchor mo ngi tudd Georges Ananias Massali makoy niou 2000 17 élections locales dama nekkoon candidat au conseil départemental de Ziguinchor candidat à la candidature ci est Askan Wi. 2022 2022 2022 dama candidat à la candidature ni Ousmane Sonko nekkee candidat à la mairie man ma nekk candidat à la candidature pour le département ma défendre ma candidature en tant que membre Avenir Sénégal du Sénégal. bëgg commission d'investiture bu yeewi askan wi commission bi dafa indépendante parti yi ku nekk libre nga indi sa candidat man dama indi sama dossier defar ba mu jek ñew tek Pastef am dossier am ko ñew tek muy benen candidat bu dul man wa bu mu don membre Pastef Pastef dina indi benen candidat ba candidat bobu gagné sénégalais yu bëri xamuñu loolu ba tay Ziguinchor am nañu défé ni may président conseil départemental parce que dañu défé won ni bu ma nekkee candidat rek dama koy gagné wul nonou donc la preuve que Pastef dafa amone candidat ma nek candidat candidat booba gagné gagner, na sax ay anecdote yo xam mënon mënoon ko fi woné pour woné attachement buma amone ci suñu and bi bi loolu amé man ma wo ben kilifa bu nek ci Yewwi Askan un jour peut-être mën na ko témoigner mané ko amna na nu mi di génne ci bi sal information bi buñ ko traité nenn ni da fay melni dañu réro mak sama gañi da fay melni man ak sama alliés dañu réro nañu ko génnee ci ni mu gën a rafete dañ ñu ni dañu ko waxtaanee ba déggoo ci bi mu génnee dafa rafet te amaluma benn problème bi ma demee Ziguinchor ñuy ñuy sos suñu conseil départemental duma ma sax premier adjoint du ma sax bu premier vice président deuxième vice président la parce que bi ñu ko defee ni président bi kii lay doon dañ ma ni dama war a nekk man premier vice président ma ne leen fu ngeen teg parité loolu man maa ko wax maa taxaw Ziguinchor ñuy élire Mani l'en leen loi bi neena buñu amé président bi di goor ki ci top jigen la wara doon duma duma duma changer lolu parce que dama am dégo yu dégo ak ñeneen à Dakar nañu tek jigen man ma dem 3e donc lolu benen preuve supplémentaire la ki tok fi Adama Sarr le maire de Kër Nord il a été maire investi par Avenir Sénégal bi ñu bëgg bi ñuy candidature am à la candidature yeneen parti yëpp amon nañu aussi seen ay candidats mom mu gagner nekk candidat de Yewwi de da à Kër masaar maak Ousmane Sonko ak yeneen leader ñu ñëw Kër masaar campagne ak moom jàppale ko ñu fal ko mu nekk le maire un très bon maire pour Kër Massar ba ma fa demee barki démb tout Kër Massar la félicité et la encouragé pour son éthique pour sa présence pour taxawaayam ci dëkk bi ak li muy defaral waa waa goxam waa sëñ bi loolu doyul encore une fois ci preuve malgré tout ça Amadou Ba s'est permis dalee sonnal constitutionnels. conseil constitutionnel si vous conseil dossier di dem di nañu ba buntu dem seen yoon alors qu'il est le chef du gouvernement donc pour vous faire un peu genre récapitulatif bu ndaw yi nga dossier bi conseil constitutionnel avant dernier élément kan ci Sénégal moo ma gisul ni membre Yewwi Askan Wi la kan ci Sénégal moo gisul ni Ousmane Sonko moom itam membre Yewwi Askan Wi la bu fekkoon ñoo bokk parti duñ fa nekk ñun ñaar dafay signé mooy signé kan ci Sénégal moo gisul ni membre F24 la yi ñu ko sos fondateur ñu signé Pastef signé loolu lépp mu ngi ci internet bi gis ngeen ko yenn journalistes yi parce que yéen yenn yéen a couvrir cérémonie de lancement yi Quand ci yéen mo gisul ni ñun ñep membre FIT front pour l'inclusivité et la transparence Quand ci yéen mo gisul yoyu processus yep, yuy woné ni on est deux entités différentes et on est en alliance politique assumée voulue encouragée et entretenue alliance entretenue ni mu amé droit mom bokk APR que depuis 12 ans ak Moustapha Niass que depuis 12 ans avec feu Ousmane Tanor Dieng ak partem yalla nako yalla yeureum nek depuis plus ak yenen parti ñuy ay alliés nonu nous amé droit ñun nek en alliance ak ku ñu neex Pastef est notre allié dañu koy revendiquer mais mënu ñoo fusionner mu nek ben entité lolu amul il raconte n'importe quoi enfin néna ñima investir. investir waruñu investir ou le parti ou la coalition qui ma investir waruma investir pas est-ce que vous savez investir visiblement à Madouba, xamul kan moo investir il n'a pas cherché dafa tomber dans la facilité et le manque de rigueur parce que moi, je suis un indépendant indépendant indépendant rek moi, je investir dafa am le candidat indépendant et le candidat investi par une entité

et li tax ñu nekk ay indépendant mooy yàlla dafa def sax faf ñun ci suñu biir ki ci daan politique ba mu ko bàyyee daanaka xanaa mat na fukki at ak juróom koo xam ne jamonoy Cheikh Anta Diop lañ ko formé woon suñu sage di suñu doyen mu ngi nii toog moom moo ci amoon expérience politique depuis temps wu Cheikh Anta Diop bàyyi na ko bu yàgg mais ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi avenir Sénégal bi ñu bëgg kenn ma su cee politique ma su am carte membre benn partie ñooñu nag. avons def une assemblée générale le 16 décembre moom yëgul loolu le 16 décembre bi passé lay lenn ci membre avenir Sénégal bi ñu bëgg du ñëpp ñenn ils sont totalement indépendants ils ñoo am carte parti politique ñoo daje le 16 décembre ñu fait def assemblée waxtaan Nous ñun créé nañu kuréel une entité regroupant des personnes indépendantes qui s'appelle président Binyubug, le 16 décembre lañ ko def suñu entité qui ma investir mon président Binyubug, entité regroupant des personnes indépendantes avons notifié le conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel di rôle dossier dans le fond gis na Le conseil constitutionnel d'accord validé ça veut dire que le conseil japonais na ni loolu Amadou de ñoo ñooñu ma ñu ma investir waruñu ma woon investir parce que nangam ak lii nangam am nañu procès verbal suñu assemblée générale boobu bokk na ci suñu dossier yi nga xam ne yóbbu nañ ko conseil constitutionnel. donc mbokki Sénégal daal fi ma bëgg a ñun dañu jàpp ni réew lu sérieux la Sénégal sonn na at yi ñu génn lu nekk am na fi ci ay joote ci ay jafe-jafe ay nit ñàkk nañu seen bakkan ngir démocratie bi ak ngir réew mu baax. ay nit ñu ngi bàyyi seeni njaboot ñoo ngi ci kaso bi di fa souffrir ay nit seeni doom ñoo ngi ci kaso bi di fa souffrir